mais des fois on vous reproche euh, de vraiment di dugg ci vie privée jàmbur yi est-ce que vous prenez la peine de lire surtout les reproches wala sax les critiques yu nga xamante ni ñu ngi koy def par rapport ak sa liggéey ak yow lan nga gis si di dugg ci vie privée jàmbur di ci def ay révélation vie privée doomu aadama xaju si déjà tu as dit on vous reproche on c'est qui on c'est les téléspectateurs les internautes sénégalais yi seetaan ñooñu di ma ñoo indi seen vie privée lan mooy vie privée pour yow. une bonne question la vie privée c'est une vie qui se retrouve entre quatre coins d'un mur qui t'appartient fii nii yu nekk nii privé la hôtel bii quatre murs boo ñu sëq c'est privé te nit musuma ñëw taxaw ne Tange dafa ñëw ci sama quatre murs fekk may def nangam sangam mu xëy dem yóbbu ko ci télévision Tange demul kër ma Samba Tange demul kër ma Demba Tange demul kër ma Paate on fait une émission qui s'appelle People lan mooy définition people c'est faire des révélations sur la vie des stars et de nos célébrités et stars et célébrités nag la wax ñëpp ñu ngi ci biir loolu mooy people lan mooy journalisme politique quelqu'un qui relate tout ce qui est révélation politique chaque jour Pape Alé Niang beneen journaliste taxaw di def ay révélation ci politique di dugg ci biir ay révélation ay nit diw nangam société nangam moo fa def nangam moo fa def nangam sport chaque jour le journaliste sportif dem ci entraînement ba dem ca terrain ba ñëw ne jour bi nangam moo joué woon club bi moo génn club bi moo def nangam people loolu la laaj people bi ko laaj nag yow mi star yow mi célébrité ñu dajee ci endroit public moomoo moomuma ñu dajee ci mbedd nga def fa njombe wala nga def fa lu baax wala nga def fa leneen ñu ñëw teg ko nga ne dafa dugg sama vie privée posons la question Aïcha tey nga toog sa kër déglu ma rek nga toog sa kër góor bëgg la yëguma nga woo ma nga ne ma temps diw man la bëgg diw moom lay génnal temps yi jëkkëru nangam moom laay génnal maa dugg sa vie privée wala yaa ko indi benn ñaareel ba mu yónni ay kilifaam ñi dajeek ay paa ñu toog ci benn salon ñuy waxtaan dañoo bëgg a takk ay sa soxna ñu yëkkati seen warugal def ci enveloppe muur ba mu saj rek jox la nga xëy dem ci sa TikTok yaa moom TikTok privé la wala public nga dem sa sat yi nga ne may nañ ma cinquante millions may nañ ma or nga dem sa jëkkër jël la ci biir néegam loo xamante ni sutura la nga sëgg tëdd nga ne da ngaa vierge nga jël seer bi taq deret nga def ko ci sa TikTok privé la wala public fa ngay lekkee laax nga sangu nga wuti téléphone ñëw filmer ko Tange nekku fa ki xam Tange nekku fa keneen nekku fa nga sànni ci mbedd bi privé la wala du privé on se dit la vérité loolu tey nga def ko ci réseau sociaux yi suba ñu relaté Aïcha l'animatrice de cette TV may nañ ko jëkkër may nañ ko dotu trente millions nangam sangam nga yónnee ma message Tange macha allah kontaan naa ci yow yëpp si ab article bi parce que Aïcha mi ngi defanteeg ay moromam suba Tange mi waxoon askan bi yëpp que Aïcha mi may nañ ko trente millions sëy nag diw Aïcha boobu ak jëkkër ja tas Tange du nee ne Aïcha ak jëkkër ja tas nañ benn ma jox la beneen exemple. ñaata jigéen ñoo fi tas ak seen jëkkër yëguma ñu jël seen téléphone woo ma ne ma Tange yëg nga ni divorce naa yàgg na doo ma ko waxal parfois sa émission bi ndax góor ñi ñemee ma <laughs> barki Serigne Saliou Mbacké ak émission bu ñuy def y a plusieurs personnes qui l'ont fait Tange divorce naa dem naa tribunal juge bi nangam mais sama jëkkër dafa bañ ñëw wala nàngam sàngam dafa ma dóor loolu vie privée la Sénégal bu ñu yàpp nit ñi kuy dox ci kaw suuf fare ngay wooñu ñay wax seen vie privée du ñu dara c'est que des prostituées déguisées de classe qui se profitent ñu des séries télévisées lekkuñu naanuñu jànguñu jonguñu amuñu formation amuñu profession bëgg a wone seen bopp su subaa ñi bëgg a tànqal nit ñi ñu ñoo leen gën ci juddu ñoo leen gën ci day ñoo leen gën ci bay ñoo leen gën ci suture parce que légal la ñuy liggéey vie privée moo amatul Sénégal ñi bëgg seen vie privée ñi ngi ak seen vie privée kenn xamul leen ma Samba kenn xamul leen ma Demba ñi ngi ay millions dëkk ci ay château yor or yu dul jeex nit xamu ko nit gisu ko waaye ku ci dem benn xew jël say palaake def ci say gram filmer dugal jox ay jeunes wut ay influenceur fay leen dugalal ma ko TikTok ñu jël ko après suba ngeen wax dama bëgg mu jeex tàkk dugguñu kii vie privée ma sàmba defuñu révélation defuñu nangam sàngam te révélation bu ñu mës a def dëgg moo ci nekk parce que nit musuñoo weddi nañu jàll ci beneen beneen chanson préférée du dëgg du dañ de Pape